asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi siyaare suñu kilifa yi nga xam ne ñoo teew ci jataay bi di ci jiital sëriñ suñu waajur suñu sëriñ sëriñ Amadou Badawi di ñaan suñu borom yàggal ko lool te li mu yéene liggéey sëriñ bi yépp mu àggale ko na mu ko bëggee ñu ngi gën a bég ci ab taxawaayam bi nga xam ne nii ba bis bi tàmbalee ba léegi jamono bi ñu nekk moo fi teewal Cheikh Abdoul Fatah waaye di fi teewal boppam ngir li mu seq ak Cheikh Mouhamadoul Fadal mu Cheikh Abdoul te ku nekk xam na ne jamono ji jamono ju nekk sax waaye rawatina jamono ji ñu toll ak ak jotam mayu ko yu bëree bëri bëri waaye jamono ju nekk rek na mu ko tàmbalee woon ci tàmbali ba léegi ñu noonu la koy wéyale kon ñu ngi ñaan suñu boroom gën koo dëgëral gën ko fee yàggal gën ko gën koo wéral ba yéene ji nga xam ne yoon wi ak Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ bi moom la am ci moom yàlla na ko matale te ñu ànd ko moom xam naa di yëgul bu baax nag ci kàddu yi ndax kàddu yi sëñ xaar yi mu yëkkati moo ko itam ñun nag yoo xam ne nii xëy na jox nañu ko rek te mënuñu cee mënuñu mënuñu lu jëfe ndigal ndax laa tam xaloo say an bi xayri isni fa isnu sartun fii xabooli channi loolu sëriñ bi ko wax moo tax kon du ñàkk jëfe ndigalam waaye kon ñi nga xam ne ñoo ngi diglu rek ñu bàyyi xel ci ne eh, kàddu yi ñuy yëkkati mën naa am ay njuum te mën na cee bari ndax bu fekkee ne da ndaw loo xam ne nii sa aliwo bu dut sam xel dese naa jub mën naa am nga waxoot yoo xam ne nii loxo mën naa dem gi kon bu ci amee rek ñu ñu koy jéggul te di nuyu tamit sëriñ Baara mi nga xam ne ni mooy Cheikh Maodo la mooy kilifa njaboot gi jotaay bi ñu toog kàddu yi ñu yëkkati itam ko sëriñ Saari waxee ci turu afaaru Cheikh Mouhamed Fadal waaye ci turu nga xam ne ni moom moo kàddu gi dogal ngànt ñëpp rek ci luñ wax rek ñu xam ne dañuy mel ne kuy taxan guddi rek mën naa am ñu fay for matt bu baax waaye mën naa am ñu for matt ko mu am yi dégg di ñaan Cheikh Mamadou Moustapha yàlla fi yàgg lool te ànd ko wér ba li mu yéenee liggéeyal sëriñ bi mu àggale ko ci sagoom te ñu ànd ko moom waaye di nuyu bu baax suñu kilifa yi nga xam ne ñoo ñu féete wetum day yor te jéggulu jege gi ñu leen jege ba noppi toog ci kaw muy soxna Maamati mu Cheikh Mamadou Fadal ak soxna Abi mu Cheikh Mamadou Fadal ak soxna Njaxat mu Cheikh Abdoul Ahad ak mboolem seen seeni doom ak seeni rakk yi nga xam ne ñoo fi teew yëpp di bég bég bu baax itam ci jataay bi ak ci teewaayu waa kër soxna ab yi ñi fi teew ci njiital sëñ Cheikh Amadou Khadim sëñ Abdoul Ahad sëñ Modou ak mboolem sëti soxna ab yi àndal yëpp ak waa kër sëñ Abdou Mbar yëpp ñu ngi leen di wax ne ñëw ngeen ci seen kër ñëw ngeen ci seen ñoom kër Cheikh Amadou Fatah am ndéeg la rek ci kër soxna ab yi ñi ma jiitu wax nañ ko sëñ sëñ sëñ sëñ Omar Kan ak sëñ sëñ Abdou Lahat diggante Cheikh Abdou Fatah ak soxna Abi moom daanaka man mii di wax sax xanaa lenn laaj ndax soxna Abi moom sëñ Abdou Fatah ma ne bi nañ ko te ku nekk xam na aada yi nga xam ne moo moo daan moo daan dox ci loolu bi nga xamee ne soxna Abi nekkatu fi ci saa itam yàlla yàlla yokk ay ngërëm da ko wóyal ci soxna Jaxate mu sëñ Abdou Lahat mii lam lam lam doon jëflanteeg sox soxna bi yëpp ak cër yi mu amoon yëpp di ko wéyal yaakaar naa am na ci jataay bi ay kilifa yoo xam ne nii ci soxna jaxat mi lañ lañ jaar kon nag loolu ab ànd la loo xam ne nii dañoo ñëw fekk ko fi kilifa yi doon ko ànd di ñaan suñu borom yàlla gën a saal di sukkandiku ci loolu itam di leen jaale ak di leen eh, bokk ak yéen tiis bi nga xam ne moo fi tab bi bu yàggul mu Cheikh Abdourahmane mu Cheikh Abdoul Khoudous nga xam ne sëñ Abdul Xudus ak soxna Astu Thierno mi nga xam ne mooy waajur soxna bi ñoo bokk lépp kon ñu ngi leen koy jaalewaat te ñaan suñu borom gën a ak ay xéwalam waaye dolli ay ngërëm ak ay suñu waajur yu baax yi nga xam ne ñoo fi bàyyi ko muy sëriñ Maam Mor mu Cheikh Mouhamadoul Fadal ak sëñ Ibrahima Khalil muy muy at moo xam ne mu kii maane la ak Cheikh Mouhamadoul Fadal mu Cheikh Mouhamadoul Moussa Fadal ak mboolem suñu kilifa yi jiitu yëpp rek loolu nag ab ab soññee la ci ñi ñun ñi nga xam ne ñoo xam ne ñoo fi ñoo fi desandi ndax sëñ Tuubaa dafa wax ci Masaalikul Jinaan wax ne wa arxabul asiyaa lil amwaati raddun ila dunya maa mayaati wala suwayaatan faqat li xamaloo saalihatan tan foofu min xamaloo ñi nga xam ne ñoo génn àdduna ba nekk ca bat faq boo leen yeewoon tey jii na leen nan gën a bëgg ci àdduna li lay wax mooy dellusiwaat àdduna doonte ab seconde la ñu jéem faa jëf jëf ju baax joo xam ne nii buñ dellu siwaatee fii danañu mën a jariñ kon nag ñun ñi nga xam ne ni ñoo fi bi war nañoo góorgóorlu bu baax a baax a baax ndax boo xoolee rek ci boo xoolee ña jiitu am na ñoo xam ne ni jàpp nga ne yaa leen gën fuuf waaye am nga ñoo xam ne nii seenu dàll képp moo la gën fuuf te ñi ma tudd léegi firnde la ci kon nag loolu day tegtale ne adduna moom jàmbaar taxu fee des waaye bari pexe tamit bari pexe te su fee des waaye yaafus tamit taxut a dem kon ñu ngi ñaan ñi nga xam ne ñoo jiitu ñëpp suñu borom doon leen yërmande ak njëggal te saxal ñu ñun ñi fi des ñu sax ci bëggu sëriñ bi te li nga xam ne ni mooy buum gi nga xam ne moo ñu lëkkale suñu diggante ak sëriñ bi te mooy ak taalibe te kenn mënut a tuddul Cheikh Mamadou Fadal te tuddul ak taalibe ndax ku nekk xam na ne wala ñu bëri xam nañ ne buñ doon xool ak bokk sëriñ bi sëriñ bi léppam ci wet yëpp. waaye la muy am ci sëriñ bi li muy rëy rëy da koo jël jaay ko jënde ko ak taalibe comme noonu ko waxee woon ci bay bay bayitam bi yem waxoon yaa ayyuhal nas yaa ayyuhal sayxun nafiisu murtajaa yaa faatihal maa qabla kaana murtajaa biftu bunu watiye bil iraada lakum di kay mooda da xayra da xaraamaada min ba'di maa saraytumuuhaa minnii ahdaytuhaa ahdaytuhaa lakum bi xayri man ni kon nag képp koo xam ne dañuy tudd la tudd Cheikh Mamadou ak taalibe kenn warul la ëpp ëppale ci ci benn kenn warul laa ëpp pësteef ci genn wet rawatina ci li nga xam ne moom da si alxaaji Mouhamadou Fadil Ndiaye Cheikh ni di doon wax léegi ci dundu Cheikh Mouhamadou Fadil ak wax yu am solo yi nga xam ne nii eh, ay tomb yu am solo la yoo xam ne da ko doon wax yooyu yëpp nag bu ko waxee ba noppi ginnaaw bu ñu ko déggee lay njariñu dégg ga mooy ñu jéem koo jëfee waaye du ñu dégg ko rek ni est-ce def mu def ñu jël te buñ jógee melaat nañ meloon ndax Cheikh Mamadou Fadal moom bari na lu mu rawee ay nit gannaaw cër bi nga xam ne nii fadlu xusuusi la waaye ak njàmbaaram moo ko may ak jikkoom yu rafet yaakaar naa dana néew lool nga dégg la ma sëñ Fallou def la ma sëñ Fallou defal la ëpp li ñuy dégg waaye la ma sëñ Fallou def bariwul ma koy dégg man kon nag ñu jéem roy ci jikkoom yooyee ñun ñi nga xam ne nii ñi ma ko sañee waxal nag laay laay wax waaye suñu ñu digle di bégaat bu baax nag ci di sant dëkkandoo yi nga xam ne nii ñoo fi ñoo fi teew rawatina afaat yi nga xam ne nii jamono ju nekk bu njaboot bi wootee ñu gestu gis leen loolu nag mooy li nga xam ne ni moom da sëñ Fallou santaane woon rek wax ne ak bokk moom suñu borom moo wax innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum wax tamit ne wa'tasimu bi hablillahi jamii'an wala tafarraqu moo tax Cheikh Mamadou Fadal daal wax naan nit kii mën ngaa gën say bokk waaye mënul woon a génn ngaa ëppale say bokk waaye mënoo leen a ëpp mën ngaa raw say bokk waaye boo leen nëgut ba ñëw nga ànd ak ñoom saw doxant rafet loolu nag Cheikh Mamadou Fadal mu Cheikh Abdou mi day mel ne ma nga ca yoon woowee loolu moo waral tey jii bis boo xat la ndax Cheikh sëñ Cheikh Awa Balla mu Cheikh Mamadou Fadal sëñ Abo Mbacke yàlla na fi yàgg lool te wér ba àggale mboolem naal yi mu naanal Cheikh Modou Fadal da koy gane ca Ndakaaru bari na ñoo xam ne ñi ngi fii waaye foofu lañ jóge waaye bis bii nam daan mel yaakaar naa nu ko raw la mel loolu nag li ko waral mooy jikkoom jum làmboo moo waral nit ñi teew ndax nit ñi moom ñu ngi noonu kon nag ñi ñi ñi ñi ñi ngi koy gën a santaat bu baax moom sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Fallou tey ñaan suñu boroom gën koo dëgëral moom itam ak mboolem njabootu Cheikh moom Cheikh Abdou Fatah gépp euh, waaw njaboot gépp benn la njaboot gépp amul yàlla dimbali yu njabootu Cheikh moom Cheikh Abdou Fatah ku ci nekk ni nga sa bopp nga jàppee sa mbokk noonu ni ko suñu ah Ahmed wax woon léegi te Cheikh Abdou Fatah wax ko muy ay bokk moom dañuy bokk pexe bokk yéene bokk lu ñu am loolu nag ñu ngi ci sant suñu borom bu baax a baax gis nañ ko ci kër gi bu baax a baax te noonu la wéyee ci mboolem njabootu Cheikh Amadou Fadal gépp kon ñu ngi sant ñëpp tey ñaan eh, sëriñ bi nga gën ñoo gën ñoo ñaanal ba suñu mag ña fan tegoon seeni tànk muy ak taalibe ak sax ci bëgg sëñ bi te di ko liggéeyal te bañ cee deñ ñun itam ñu sax ca te loolu war naa mën a nekk wala si ne amano wala si ne amano wa tabaxatum suriyaatihim bi imaanin alxaqnaa bihim suriyaatihim loolu alxuraan moo ko wax yaakaar naa lu war a mën a nekk la positif rek moo mooy mayee àggale fa fa nit ki bëgg àgg Cheikh Ahmadul Xadim ci xasida googu ñuy wax muxadamatul amdaax bi muy wax naan yu jaawiruhu kulli xadiman lahu bihi bi ñuy surtu sa xurbin te kat fekk naa waxat kudd saa nax yi la mu ko mujj jural mooy yu sar yu sayyiru nii kal aali wa sax bi sarmadan wali xaada seron xaabaxan xayri yi kon positif rek moo tax kon yàlla nañ suñu borom defal pëstéef boo xam ne nii dañuy sax ci liggéeyal sëriñ bi te jaare ko Cheikh Mamadou Fadal ba am gërëmul suñu kilifa yi fi nekk te ñoom tamit suñu borom bàyyi ñu fi ñu yàgg fi lool te ànd ku wér te suñu borom defal ñu wax danaa suriyatan tudiimu alhamala saaliha yaa xadimu suriyatan tayyibatan tëj taxidu ndax jënn biin Moustapha tëj taxidu di santaat dëkkandoo yu baax a baax ndax noonu ko Seydina Aysa doon yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo wax ne Sayyiduna Aïsa Sayyiduna sa moo wax ne yonente bi wax na ko ne Jibril mus sa deñ di ma dénk ak dëkkandoo ba ma jàpp ne bu fi ju moo fi jógee war a bokk ci ñamay doon loolu nag kon ñu ngi leen sant bu baax ndax wax màggal gi ñëwee ngeen génn seeni seeni kër génn seeni seeni seeni teraanga ñëw jàppale ko Cheikh Mamadou Fadal mi ci cant gi mi cant Cheikh Mamadou Fadal kon ñu ngi leen ci sant bu baax a baax tey jeexale dénkaane bi nga xam ne ni sëriñ bi moo ko dénk yonkaane woon waxoon ne juróom yi buñ xam seen juróom yii mu ne seeni wayjur buñ xam seen seenum naqari deret seenu njaboot buñ xam seenum nay waxtu julli juróom yi bu ñu xam seeni yitte seen bërëb liggéeyukaay bu ñu xam seenu tayal seeni dëkkandoo bu ñu xam seeni ñaawi teggin kon yàlla nañu suñ borom may digg topp wax ji li ci jub ñu ngi koy sante sëriñ bi li ci dëng ñu xam ne gone bu doon jéem wax ci tuuru ay kilifaam te matul leen ndaw moo doon yëkkati kan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu